bi bi président de la république jeunesse pour nous engager davantage davantage si sensibilisation bi ak si euh, port masque au niveau du départ au niveau national donc nous, en tant que ay ndaw pour dëkk Pikine war ñu dess ginaaw. raison pour laquelle nous avons tay fi pour lancer suñu programme d'activité. Jour yi ñeu bëgg nañ vraiment parce que daanaka commencé nous avons ko avec les 100 volontaires ñi nga xam engagé nañ ko si CM ak lycée yi yi département de Pikine Légui tay dañu bëggone dupliquer format de def ko mille volontaires yi nga xamante ne peut-être nekk si zone yi nga xamante ne am na ay nit am na ay nit yu bëri ñu fay dajaloo lu mel ni rond-point Kër Massar doon na bërëb boo xamante ne nit ñi dañu fay dajalu bëri bari euh, buntu Pikine euh, mel ni aussi marché syndicat euh, marché poisson marché zinc mu doon ay bërëb yoo xamante ne nit ñi dañu fay dajalu bëree bëri bëri ñuy gis ñun carrément comme que la ville de Pikine le coordonnateur départemental Ablaye timboo engagé na cent jeunes yi nga xam ne ñu ngi si CM yi ak lycée di def liggéey boobu noonu ñu gis ne liggéey bu am solo la ñu bëggoon nag ñu multiplier loolu noonu def ko engagé ko multiplier ko ak mille yi nga xam te ne dinañ am yeneen jeunes yoo xam ne dañu mën a engagé aussi zone yooyu noonu yi nga am na ay nit yi bëri ñu fay daje pour ñu mën a apporter sensibilisation apporter sensibilisation moo war ak si respect des mesures barrières ñaax nit ñi ñu sol masque normal parce que loolu rek lañ gis moom moo mën a def moom moo mën a tax ñu mën a arrêté virus bi nga xam ne mu ngi ñuy muy gën di law